jaajëf tey jaajëf tey sama gars yi Mister Shake la Brooklyn New York gars yi tey dama ñëw defal leen video vidéo vidéo bi nag dina xaw a triste ndax dañuy wax ci capitaine Touré bi nga xam ne président Macky Sall dafa génne benn décret Matam daal di ko radier bi maanaa daal di ko dàq ci gendarmerie cadre gendarmerie capitaine Touré ken dootu ko présenté capitaine Touré affaire Adji sar lañ ko xamé mom gendarme bi jël procès verbal procès verbal manam ba lacc euh Khady Ndiaye ndey Khady Sweet Beauté mi nga xamné mom mom salon bi mom moko don lacc mom moko waaw moom ñëpp xam nañ ne dafa génn mu wax ay wax yoo xam ne dafa jàppale Ousmane Sonko ngir wane ne yëf yi dafa mel ne Adji saar mi jiiñ Ousmane sonkoo ne daf ko siif dafa wane ne loolu du dara lu dul complot que ne Adji Sarr li mu doon wax yëpp ay kàcc la ay fen la capitaine Touré yemul foofu dafa génn mu def ay audio def ay interview xam nga wax ay wax yu doy waar yoo xam ne dafa setal Ousmane Sonko ba mu set wicc ba loolu amee moom ci boppam mu ragal capitaine Touré dafa ragaloon ne dinañ ko rey wala dinañ ko dóor wala dinañ ko gaañ mu daw daal di làqatu capitaine Touré ba mu làqatoo kenn xamul fu mu nekk mu dem Touba Touba la demoon. waaw euh, mujj bi mu ñëw mu ne démissionné maanaam bàyyi naa gendarmerie mais lu tax ba mu ne bàyyi naa mu ñu woon nangu démission na démission mais déedéet déedéet gouvernement Macky Sall loolu doy leen loolu doy leen il fallait que ñu jàpp ko il fallait que ñu toroxal ko ngir wan ne ko boo nekkee ci gendarmerie war nga nekk ci armée li ñu bëgg moom ngay def capitaine Touré dàq nañ ko. dàq bu ñaaw mais gars yi du loolu rek laay wax tey du loolu rek laay wax damay wax tamit ci Macky Sall dañu dafa gis dañu gis benn tàntam bu tudd Kadiata Sall ak benn maamam bu tudd euh, euh, moom it Kadiata Diop nekk fële ñulumaa ji dëkku papay Macky Sall ñoom tam dañoo génn ñu ne Macky Sall defalu leen dara defalu leen dara kër seen kër papa ji tabaxu ko euh, nañ ko gis mooy ni wax ci capitaine Touré ba pare ndax capitaine toure moo fi waxoon moo fi waxoon procureur moo waxoon euh, commandant Meng ngir mu jàpp euh, garde à vue ngir ñu jàpp Ndeye Khady Ndiaye waaye ba mu waxee dañuy jàpp Ndeye Khady Ndiaye commandant Meng dafa ne ko Ndeye Khady dafa yor benn liir capitaine Touré moom moo nettali mu ne. procureur dafa ne ko yow li moo lay yàq dangaa bari bëri yërmande maanaam fexal ba nga jàpp Ndeye Khady Ndiaye capitaine Touré moom ci boppam moom moo sauvé Ndeye Khady njaay ndax moom ci boppam moom moo wax ne moom moo wax Ndeye Khady Ndiaye bu yóbboo nga dem waxal ne da ngay nàmpali comme ne nga ne da ngay nàmpali hôpital buñ lay jël si waxal waxal ne da ngay sa doom prématuré la boo ko boo ko fi boo ko fi bàyyi dafay dee. bu ñu la waxee rek bul taqalikook sa doom loolu capitaine Touré moo ko wax Ndeye Khady Ndiaye ngir yërëm Ndeye Khady Ndiaye loolu nag lañ ko meree enquête bi ba pare ñu toog ba ci yàgg gis procès verbaux yi maanaam lépp lu ñu lu mu bindoon moom ci li ko aji saar wax ne moo am ci euh, euh, mbir mi ci li ko euh, Ndeye Khady Ndiaye wax ne moo am ci Sweet Beauté capitaine Touré procès verbaux les gens ñu le Pape daf jot Pape daf jot certificat médical bi Ahmed jot ci certificat médical bi dafa um am Ken kenn le ñu euh, gouvernement bi capitaine Touré mom mo sénal manam li wax fuité fuité mom mo sénal document pap xam documents yi def ci émission wax ne complot la wax ne aji Sarr dañ ko doon yóbbul lekk wax ci la turu euh, euh, Sidi Ahmed mbay daal di génn si la 4-4 yi génn ci la loolu yëpp génn capitaine Touré nag loolu moo tax mu kalaateel diilu euh, gouvernement bi diilu gendarmerie ah loolu nag ci lañ ko mere ñëpp xamoon na ne dañ koy dàq. dañ ne sax dañ ko jàpp ñu jàpp ko ñu war ko teg quarante cinq jours maanaam fanweeri fan ak fukk ak juróom waaye dañ ci jolli yeneen fukk ak juróomi fan kon moom tëdd na juróom weer ak ak fukki fan tëdd na ko ñu ñu ne déetawaay Macky Sall nga xam ne ci de économique la ne xaarul sax ba ñëw Dakar ndax décret bi maatam la ko signé xaarul sax ba ñëw Dakar décret bi Matam la ko signé ñu dàq ko dàq bu ñaaw léegi retraite sax du ko am ndax jotul liggéey fukki at fukki fa fukki at ak juróom comme lu mu lu mu jot dugal ci retraite bi Macky Sall nee na nañ ko ko dajaleel ñu fay ko ko te loolu xam naa lu doon xaalis bu bëri ndax retraite Sénégal ñëpp xam nañ ni du du tous Sénégal du tous te est-ce que dina ci gaaw a jot sax ndax dañ ko am mere est-ce que dina ci gaaw jot yemuñu foofu dàquñu ko complètement dañ nekk léegi soldat la soldat la maanaam tey dëkk bi bu ko soxlaa ci guerre dañ koy ñëw rek jàll di yóbbu réserve ci réserve lañ ko bokk dañ ko def bu soxla buñ mënoon nañu xëyee benn jour rek yóbbu ko bi wala ñu yóbbu ko fenn foo xam ne guerre dafa am kon ñoom daal noonu la ñu bëgg fayantoo ak capitaine Touré mais nag lii yëpp Ousmane Sonko rek moo tax ñu koy def ndax Ousmane Sonko la ñu bëgg faagaagal ci affaire Adji Sarr waaye xamuñu ne fu mu nekk nii capitaine Touré dara téyetu ko ngir mu wax nag yeneen secret yeneen i njuuj njaaj ji am ci dossier bi fi mu nekk capitaine Touré day gën a mer te dara du ko tere wax ñoom Sonko duñ ko seetaan. waa Pastef duñ ko seetaan ndax Sonko dañ ko rajee woon tey la gën a am doole capitaine Touré ñu laj rajee ko tey lay gën a am doole ndax Sénégal ñun ñun sot la ñu Sénégal sot la ñu mën Macky Sall ba ko ba mu amee problème ab Ablaye Wade nit ñi dañ ko jàppale waaw léegi daal ngir wax leen rek pour pour pour euh, jeexal foofu balaa may ñëw ci euh, famille euh, Macky Sall bi nga xam ne moom it toppatoowu leen ma wax ne affaire Ousmane Sonko bi bu fekkee ne looloo tax moo leen metti ba léegi nañu xam ne première vague bi amoon Adji Sarr moo ko indi Macky Sall man amul conseiller man damaa conseiller ba sonn ma ne Macky Sall na bàyyi affaire boobu mu sedd bu fekkee ne sax lu ñuy waxal Sonko dëgg la ne dafa defoon loolu sax Macky en tant que président moo war wane grandeur te Sonko sax deful waaw viol amul Adji Sarr ay fen yu yu tooy xepp la wax nee na dafa biir biir boo xam ne amuloo carte carnet de santé santé

boîte boo xam ne kees boo xam ne ay musiba rek ñoo nekkoon foofu pour Macky Sall Macky Sall bu njëkk ba jàmm rek la amoon Sénégal di def lu ko neex di tëj ah faalewul nit ñi du dem seeti nit ñi xam nga demul tourné deful dara parce que talu ko woon di jënd ay avion lu ko neex def kenn du sañ wax dara waaye bu mu laalee Sonko ci la affaire bi ci la lépp mu yàqu bu dëgëree bopp nag di gën a dugg ci dossier bi deuxième vague bi moo ko fi fekk te bu boobaa du eggali loolu dafa leer ñom nak ñu ngi yoni François gay lu ne ñu koy wax waye fit rek nañu tribunal ngeen xol lutax nous ba juge qui euh, euh remplacé juge juge Samba dafa dossier bi dafa dafa mu mu juge Mamadou comprendre ba la lay xaar la lay xaar pour juge na bàyyi affaire Adji Sarr bi Sonko kenn mënu ko tere tere nekk candidat léegi lii moo tax nag Macky Sall dem maatam maatam la bindee euh, nu mu tuddati euh, radiation bi décret bi Matam la ko bindee te waa maatam Fuuta Tampi gis ngeen li ñu ko def Macky dañoo taal këram bi nekk euh, foofu Ndulu Majji Ndulu Majji dëkku papam la dëkku maamam la waaye dafa ndóol Ndulu Majji ndóol nuulu màjji dafa ndóol bu ñu wanee dëkku papay Macky Sall fu mu dëkk ak maamam ni mu meloon lan la mel kajata kaja Sall benn tante Macky Sall moom nee na Macky Sall dafa ko xëy na sa vrai dëgg la Macky Sall mos na ko yóbbu mag waaye nee na Macky Sall dundalu ko Macky Sall wóolu na ko euh, ba pale benn dimanche lundi mu dem fa Macky Sall recevoir ko gisu ko sax beneen jigéen bu ñuy wax Amina Gassama Gassama moo ko jox fukki junni ne ko Macky moo la ko jox fukki junni fukki junni mu ne ko duma ko laal noonu la ko geddee daal di dem boobu la ñu gëj a gis Macky Sall ñu wane kër bi Macky Sall fi papam dëkkoon ah Abdou Souadou fu mu dëkk ak maam def naa maam Amadou la dëkk maamam li mu fa néeg bi mu fa tabax mi ngi fa papam li mu fa tabax mu ngi fa waaye Macky Sall tabaxu fa dara am na nag kër bu buñ ne Macky Sall tabax na ko mooy kër gi ñu lakk foofu mais xam naa ne du këru papa Macky Sall dafa ne këru papa mais man gëmuma ko kër googu këru Macky la gars yi ba ñuy taal waxuñu kër papa Macky dañ ne këru Macky la ñu Kaja mi moom nee na boobu moom boobu la gëj gis Macky Sall Macky Sall Sall ci boppam ñëw na fa fa bindal na ko lettre pour mu joxal ko Macky Sall Aliou Sall bi joxul lettre bi Macky sàll comme ñoom ku mënul defar sa village nan ngay defaree Sénégal ku mënul defar Fuuta bi nga jóge nan ngay defaree Sénégal loolu tax nag Fuuta tampi daal di jóg Macky Sall tey waxoon naa leen saa yoo leen yeewoo di ngeen gis ay musiba yu bees ay scandale yu bees waxoon naa la ba fii ba 2024 bu amee chance sagam dina egg 2024 nit ñi dinañu génn di ko dal mu am ay scandale lii dafa ñaaw yow say mbokk waa Fuuta ñu yaakaar ne waa Fuuta rek la ñu dem nag ba sa tanta ki bokk yoo xam ne seen papa yi ñoo bokk ndey ak baay amul sax lu mu lekk ñu wane ay ginaar ñu wane ay ay ay ci ci ci kër gi ñu wane ay kër yoo xam ne këru ban la lii dafa ñaaw beneen maamu Macky Sall bu tudd Kadiatou Diop moom it nee na Macky Sall ba muy jund moom moo ko sang dañ ko woo Fuuta mu jóge ba Fuuta dem sang Macky Sall sang ko ba mu set waaye nee na moom it 94 ans juróom-ñeent fukki at ak ñeent gëj na gis Macky Sall Macky Sall defalu ko dara defalu ko tus tus defalu ko te moom moo ko sangal moo ko sang euh, Kadiatou Sall bële moo ñaanal Macky Sall ne ko di nga nekk président xam nga waaye Macky Sall da leen abandonné da leen fàtte kii maamu Macky Sall bi nee na euh, Colobane la xaw ma benn jour daal dakaar Macky Sall romb na leen nii di jàng ñu woo ko ne ko eh Macky sa sa sa sa kii sa mbokk kii sa mbokk la Macky faalewu moom nee nee nañu boobu la ñu gëj gis Macky Macky Sall nekk na fi ministre nekk na fi euh, euh, président de l' assemblée Macky Sall nekk na fi premier ministre Macky Sall nekk na fi président juróom-ñeenti at defarul nulu màjj moom ba mu nekk ministre rek mënoon na defar ndul maaj ba mu nekkee ingénieur waxtu ma laak nga nekk fi loolu yëpp dimbaluloo say say sa sa askan ba ñoom ñu génn tey di laxas léegi nag lenn la ñuy gis dégg naa woo na waa ndulu maaj ji woo na leen di wax naan ah non non taaluñu sama ñooñu dañoo euh, euh, da dañ maa bëgg rek moo tax ñu taal kër gi mais loolu du wax du waxu euh, nit ku ku ku xam réalité yi Macky Sall bul wax ne dañ laa bëgg moo tax ñu taal sa kër ñii du question li nga fa ñëwul c'est vrai que bëggoon nañ nga ñëw fa waaye du question boo ñëwoon da leen gis ñu sol ay morceaux yu xonq waaw li ñëwul nag moo gën a poussé ñu taal kër ga mais bul wax ne dañ laa bëgg dañ laa namm moo tax est-ce que yaa may dégg léegi nag Macky Sall ñëpp xam nañ lu muy def nee na dina leen woo pale dina leen woo pale mais loolu c'est trop tard loolu c'est trop trop waa Fuuta ñoo war a am fulla ñu bu ñu leen woowee pale ñu ñu ñu bañ a dem sax far ñu bañee dem far far parce que jëkkati ay 2 millions 3 millions jox leen ko ngeen séddoo ko après mu fàtte leen loolu dafa ñaaw li ñu koy wax rek nag mooy famille moom mere nañ ko trop sa maam ak ak Sénégal nu mu méttee àll bi nu mu méttee sa papa juddoo àll ba sa maam julloo àll ba yow war nga xam ne waa àll ba dañoo sonn nga sacrifier nit ñi ah doo ne xamu leen de ndax Aliou Sall dafay dem chaque jour loolu la euh, Kadiata wax nga sacrifier sa famille. ñoo xam ne ba nga nekk ministre nekk euh, euh, président de l' assemblée nekk premier ministre nekk président defaloo leen dara kon nan ngay defaralee Sénégal di jënd ay avion di jënd ay bateau gars lii yëpp yàlla moo koy def ngir weer Macky Sall fin de régime lañ nekk nguur buy jeex nguur buy jeex li ñu koy wax rek mooy li ko dese ñaari at ak genn wàll na liggéey lii nag dalay wan ne Macky Sall bu njëkk ba daanu woon seetaan réseaux sociaux yi waaye léegi dootul parce que ñu bëri dañ koy nax